mbokk yi sëriñ Abdul Aziz Diaw di ku ñëpp ràññee ci wàllum ñaan yàlla boroom xaalima gi du laal suuf macha allah laal leen bant xam-xamam ak gëstoom ak ragal yàllaam loolooy li sabab réew mi yépp ak bitim réew jox ko bopp ay li ko wut xam-xam jaral gëstu xam-xam daf koy jaral dem fépp ci biir réew mi ak sax bitim réew daanaa leen wax lii di sedd li saxaar moom gisuma ku ko ci man Serigne Abdoul Aziz Diaw ni ma bu maa ngi feeg mbir mu yéeme sax ah waaw lan la mu ni ma xanaa li ñuy wax xorom si lan mooy njariñu xorom si mu ni ma bépp diggante bu yàqu bépp diggante bu ñagas xanaa dafa fekk amoo ci xorom si waaw secret bu doy waar la ci boole Serigne Abdoul Aziz jaw mooy borom rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci gàllaaj rus na maa xam nit ñi di ko néewal doole ci xam-xam sangatu bayre moom benn la ci Afrique lépp lu jëm ci muslaay kaaraange dawal seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw ma nga fële ca cees ca quartier ba ñu duppee Serigne Abdoul Aziz Diaw yow mi lijjanti ay kayit mu tëla gàllaaju kër xale bu të ay mbokkam bu lu jëm ci wàllu plante kenn mënu ko ci ci réew mi ndoxum siti góor gu néew kattan hémorroïde jigéen guddul yëg bànneex Serigne Abdoul Aziz jaw mi ngi ceeg lu yéeme sax yow mi bëgg a jokkoo ak moom 77 571 87 63 wala 78 469 waxoon naa leen ni leen bu ngeen deeti ñaan yi nit seeni mbir daw leen seeti ku ragal yàlla te am xam-xam Serigne Abdoul Aziz jaw moom a ci doy su ngeen bëggee dégg dëgg daal Serigne Abdoul Aziz Diaw ku mel ni moom ci Afrique benn la fi. Papa Alé Niang jël na fonction ba def sax discours am na nag ay vidéo yu ñu ni daal euh, waa ji après dafa nekkoon ci biir otoom di jooy xam naa RTS gi mu nekk fukki at ak lu teg doon ko wan ginnaaw ak personnel beeg njaboot gam fa am xame yi xam naa moo tax waaye daal Papa Alé Niang jël na fa kàddu ci biir ndaje ba ñu déglu ci aslëf te dellusiwaat dañ fa liggéey ak la ñu génn ci programme ñëw ci biir RTS tàllal samay loxo wax naa ko léegi ñëpp ña demoon nañu dellu si kër gi seen kër la mu neex leen mu naqadi leen seen kër la comme seen kër la nag dama jàpp na yéen yéen a ko mën a defar ba mu na boy damay wax ne mission biñ ma sas kilifa yi ma ñi ma ko sas bañ ma toogee waxtaan ak ñoom dañ na ma dawalal ci kaw lan nag ci kaw dëgg ci kaw jub te dama faral di wax ne bu nekkee ne du ci kaw dëgg wala jub liggéeyal askanu Sénégal ban gis seen bopp ca ci télé bi yàlla moo fi toog li ma gëm laay wax man parce que mënoon naa nekk feneen ndax nekk naa feneen lu sama carrière lu toll ci ñaar fukki at ak ñett di tedd kon mënoon naa wéy ba tey kon bu ñu la joxee sas bu toll nii day fekk na danga war a liggéeyal sa askan yàlla defoon ma nekk ci privé tey ma nekk ci public li ma war ak li war ñépp ñi nekk ci biir RTS mooy ñu ànd jàppale ma jàppale seen bopp mi ngi noonu jaajëf Papa Alé Niang am na waay joo xam ne bi ñu commencé ba léegi mu may laaj ci numéro Sandiogou muy xamal lot officiel léegi danga may envoyé message sama numéro bi ma joxe woon rek muy 256 61 bu ma ci yónnee message. bu ma ko joxee daa gaaw nag. 256 61. 77 250 su ci envoyé audio dinaa ko jox numéro Sa Ndiogou waaw maa ngi joxe foofu sa numéro Assane ni ngi noonu Racine démb tàggoo keroog tàggoo na ak Papa Alé Niang joxante mhm. lenge reetaan keroog laa mas a gis sax vraiment reetaanu Racine mhm. waaw ba bëñee feeñ macha allah muy ndaje moo amoon daal eh, bari woon émotion yi tamit mhm. Pape nee na ñi ko ko jox bañ ko ko jox dañ ko nag ci dëgg moom mu ni su fekkee nar na cee toog te du ci liggéeyal sénégalais yi waxul liggéeyal ci état bi ci liggéeyal sénégalais yi yàlla bu mu fa toog Hmm. kon daal discours boobu Sénégalais yëpp am nañ ci yaakaar ni daal Pape jàpp nañu ni dina soppi hmm. xar kanam RTS. Hmm. waaw Pape de xam naa ne liñ wax noonu de bëgg a Sénégal yi léegi mais Sénégal yi moom xam nañu kan mooy Pape Alé Sénégal yi ku ànd ak moom ak ku ànd ak moom xam nga ni nit ku dëggu la xam nga ni nit ku jubla te xam ngeen ni it bañkat la kooku nag euh, message bi nga xamante ni jàllale na ko mu ni euh, yéen ñi fi yéen a fi nekkoon yéen ñëpp ñëwaat leen. kër gi seen kër la. Mhm. kon ñoom seen xel gën naa dal ndax bu ñëwoon ni sama kër la kër gi nangam nangam mais daneen a xamal ni seen yëf la yéen yéen ñi fi nekkoon doon liggéey seen yëf la man nag maay seen kilifa damaa nekk seen ginnaaw rek. Mhm. di leen jubbanti wala. nekk nekkoon frigo génn leen. waa yéen ñëpp ñëw leen ñu ànd liggéey. Mhm. ñu am RTS gu bees tàq liggéey liggéey bu rëy Sénégal gépp gis seen bopp loolu daal ñu ngi ko si ñaanal mu am si réussite total total ndax bu amee réussite la ñu am kon nag ñu ngi ko ci ñaanal daal bu baax a baax yàlla defal ko ci ndam man daal en tout cas postoom bii bokk na si yi nga xamante ni yitteel na ma tey bokk na si yi nga xamante ni sama post la bokk na si yi nga xam ne sama moomeel la incha allahu lu ma si gis lu RTS a def dinaa taxaw ni lii kat na ko RTS di bu ma jaralee ma sol sama daal ma sol sama daal ba àgg sa bureau waxtaan ak moom moom Pape Alé loo wuti bureau Pape Alé sama xarit la waa da lay seetaan yow loo ko wax fii mu def ko li ma ko wax dana ko def nii nii nii mi ngi lay seetaan waaye mënuñoo pour lan. ah dama koy ñaanal yow Assane ñaanal ña. non si loxo yi laa bëgg ñaanal. Assane réew mi changé na. non dama ko bëgg a ñaanal bureau yi maanaam dugg be génn bi day. xatal bureau yi par force dañ siy dugg. am na bureau yoo xamante ni dugg gañ fay dugg yërmande la sa kër ga. waaw kilifay diine yeeg kilifay aada yeeg yëpp nañ fay dugg ku ñëw duggal sa leetar bu la neexee jàllal Pape Alé gis ko Pape tey kenn buntam. bu mu tëj même employé cameraman yeeg yëpp ak chauffeur si di leen dem bureau Pape Alé di ko nuyu muy waxtaan ak yéen bokkut ak ñooñu nga xam ne dañ leen di fal ñuy ngand ngandlu di wut secrétaire ngay rang ba ñàkk tooy xëpp doo ko mën a gis. ñu jël am na ñoo tey ji boo demoon seen. bërëb ngeen nekk ci di liggéey ba pare di ut rendi biir kër gi nga nekk bala nga koo gis da ngaa sonn. Ah mën toog sax ay at doo gis kilifa gi. waaw ay at doo ko mën a jox loxo paam mi ko si yooyu kon nag ñu ñaanal laa suñu borom defal ko ndam <laughs> amin yaa rabbi alaaji mhm. lii de lenn la rek ci diskuur Pape bi mais gën naa yaatu wax na ci yu bari mhm. ñi demoon nañ ñëwaat kër gi seen kër pare na pour liggéeyal Sénégal yi li ñu bëgg ci RTS ndax ñi ko jox loolu lañ ko wax waaw macha allah euh, mu def discours boo xam ne discours bu am solo la euh, discours boo xamante ni wane na ci biir wax ji que ni laa njaboote loolu di li war parce que nii rek la yëf yi war a mën a demee. parce que ñoom ñëpp dafa am lenn lu ñu bokk. muy RTS bu ñu jàngee tey ñoom ñi nga xam ne ñoo fa dajale woon ñëpp ay directeurs yi directeur romb nañ leen terewut ñoom ñu nekk seen post ëllëg si biir papaare dina leen romb dem. Mhm. comme ni Racine génnee dem. te du tere ñu nekk ci seen fi ñu ne mhm. papaale tam bi mu tamit wax na leen loolu mhm. xamal leen na leen RTS mooy liy des mhm. te yéen ñi yéen a tax ñuy wax RTS yéen ñi nag yéen a mën a defar kër gi seen moomeel la seen yëf la woo na ñëpp pour ñu àndandoo doon benn bopp wane na ni tamit liñ ko dénk pour sénégalais yi la pour sénégalais yi gis ci seen bopp. Hmm. pour sénégalais yi. Hmm. pour sénégalais yi. pour c'est très important pour. sénégalais yi dafa am solo. loolu dafa am solo. Hmm. pour sénégalais yi nag mooy ki am lu ko neex ak ki am lu ko naqari. ñëpp gis seen bopp ci RTS foofu la Pape Alé di wax man jàpp naa ni Pape ñi ko dénk xam nañ ko. te bu ñu jublu woon ci mu xalam ku leen xalamal. Hmm. du ñu dénk baabaale. waaw am na ñeneen ñu mën a dénk. am na ñeneen ñoo xam ni mën nañoo xalam waaye Pape dafa am jaar-jaar am nu muy doxee. Hmm. jaar na ci tele boo xamante ni boroom tele ba ci jëmi boppam ku ne xamoon na ni moo nguur gi fi nekk. Hmm. am na nu ñu meloon. waaw te plateau yi gën a tàng yu jëm ci nguur gi mm-hmm. Rabalais bokk na ci yu mu doon anime te loolu doon na dérangé ka nga xam ni moo doon jiite télé bi mm-hmm. ba terewut def na plateau boo xamante ni sax mu jiga waaja dafa génn néegam bàyyi seetaan ba ñëw toog ci plateau mm-hmm. waaw waaw gis nañ ko loolu gis nañ ko comprendre nga avec professionnel bi mu doon jéem na ko impliqué ci yëf yi de fexe ba jàllale émission bi. Mhm. mais émission boobu xam nga ni loolu kenn mus koo gis. invité nit. Mhm. plateau bay daw ba jékki-jékki nga ñëw toog loolu mooy na dakk waaw affaire na loolu. parce que ak di wax yeneen. waaw di wax naan ñi yàgg nañ fi ñëw toog waaye ku fi ñëw toog ba am nguur rek da ñuy wor waaw di expliqué yeneen i mbir ak affaire yooyu donc nag Pape Alé moom bon gëw ni dina soppiku ni mu mel. Mhm. déedéet gëm naa ni ñi koy dénk tamit ci loolu la ñu xool xam nañ nit ki moo tax ñu dénk ko. Mm-hmm. moo tax ma gëm ni RTS dina nekk euh, tele boo xamante ni lu bari li nit ñi doon jooy télé dina wane état li muy def. Mm-hmm. mais aussi tamit xam naa ni ñi nga. xamante ni bi dina wane tali yàqu yi. tali yàqu yi danañ wane danañ wane loolu lépp dinañ ko wane gëm naa ni yooyu yëpp dinañ ko wane. Mm-hmm. parce que loolu mooy tax nguur gi liggéey tamit aussi. d'accord. parce que RTS am na noo xamante ne bu ko doxee rek nit ñi dinañ yëg ni euh, vraiment parce que lépp nga lépp wane wane lépp. Mhm. wane lépp Sénégalais yi gis yëg mi seen télé la. Mhm. waaw que RTS. ñi nekk wal faj rek ñi nekk yooyu yëpp dañ cee war yëpp dañoo war a yëg ni seen télé lii mooy seen télé. parce que beneen télé boo fi jël rek moomeelu nit la. Mhm. mais lii mooy li Sénégal moom. d'accord ñu dénk ko Pape gëm naa ni ñi ngi koy ñaanal. sunu boroom yàlla na ko jàppale. amiin waay ba liñ ciy séentu. macha allah eh, mu doxal ko. Mm. te mu dox te defe naa ni ki mu wuutu. Mm. naqari wuuta wuutu. Mm. waaw parce que am na ñoo xam ne nga wuutu leen. ndaanaan la faaw nga def jaloore ju rëy. non Racine ndaanaan la. mais waa RTS xëy yeewu rek yëg ni Racine nekkatut seen jiit rek. def na dóor pooj li waa ji wax li kii waxoon waaye. nugum eh, li nugum waxoon yëg. yeewu rek yëg ni Macky nekkatul sa président <laughs> waaye RTS tamit xam naa ni fi mu toll nii. Hmm. ñoom yeewu rek yëg ni rek Racine nekkatul seen directeur rek. Hmm. xam naa ni fi mu toll nii loolu rek ñoom pour ñoom affaire yi neex na ba pare. waaw. jërëjëf nuyu suñu gars yi commentaire muy du caam ma nga ca commentaire ga nee na Assane Vere nandite la Awa Fall ak euh, Bekkaay Cissé. ah lu mu jublu si naan tegi lu koy xam nga ko mooy li nga wax dari asan bi rek naante la rek xam naa li nga bëgg a gis Pape Alé lay wax xëy naan da ngay dem di eh? ñaani jeeg ñaanal ba dafa doon sëriñ man sëriñ la <laughs> biir yëpp laay dem ñaanal toog nekkal ñaanaloo ñu <laughs> yéero sax ñaan wala bar la bari Pape Alé lay wax <laughs> te Pape Alé nekk Dakar Dakar ma tey gi lu yàgg demoo ko ñaanal mosoo ko dem ñaanal waaw mu nekk wal fa ay xat-xat bu nekkee ci kaso bi demoo ñaanal ko ba mu nekk ba mu dugg ci bureau bi nga bëgg koo ñaanal dem nekk kaso àll bi laa dugg àll bi laa dugg ay kilomètre di ko ñaanal naa fu ne dugg naa. Ah, ah, waaw ma dimbali ñu. fu ne dugg teg vidéo bañ defoon GCB. ma ni du moroom kenn bi ñaan dong laa ko mënal. léegi ah. noonu jërëjëf Ibrahima Diédhiou ak. Um, mbokk nga xam ne ñu ngi <laughs> ñu ngi ñu ngi commentaire maam Abou Bousso jërëjëf nee na live bi. Mm-hmm. Euh, pour partager jërëjëf maam Abou Bousso ci taxawaay boobule.